àndal saa su nekk di jàkkaarloo ak yenn internet Pikine Info maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen dalalaat rek ci yi nga xamante ni moom la ñu faral euh, tàmm di leen ko defal ngeen koy seetaan di ci bég lool tey nag dama gàddu sama waxukaay bi comme ni ma koy defee saa su nekk seeti benn ndaanaan waxtaan ak moom tey nag ki ma seet si dama ko bett ci bërëbu liggéeyukaayam muy koo xamante ni bii nii ñii ci ñu Sénégal ñi ci bëri ci leneen lañ ko xamee ca leneen lañ ko découvrir man ma ñëw fekk ko ci bërëbu liggéeyukaay mu mu mu wuteeg lool ca la nga xam ne ca la ko sénégalais yi xamee du ma leen ni kii la da ngeen di àndandoog man ñu dugg ci biir xamandoo sama gan gi may dalal tey ak ki mu doon da ñëw ñu daal di ànd Cheikh daal di dugg ci biir daal di seeti gan bi ñu xamandoo ki mu doon. Sénégalais yi jàngoo lañu ko xamee muy wuyoo ci turu Mbor Sène jàngoo doon turu acteur ba nekkoon ca série ba balaa ñuy toog di waxtaan ak moom dañu koy nuyu ba pare door a toog tàmbali waxtaan bi Mor ziar nañ la. maa ngi lay ziar bu baax a baax soxna benn di nuyu sama caméraman bu ñaawul bi di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Pikine gi nga xam ne fa laa sooxee ko rawatina géej waaye gi nga xam ne fi nga ma fekk ma fi daan sama doole di fi liggéey di nuyu képp koo xamante ne nii rek yaa ngi xool Pikine Info. Mor tey fii ñu la fekk wute nag waaw loolu am na xam nga fii moom bërëbu liggéeyukaay la comme fële ni mu nekkee bërëbu liggéeyukaay rek nga xam nga góor da ngay bari da bari pax ginax waaw jeex na mu ngi noonu nañu nañu daal di jàllu toog doog a doog a tàmbali waxtaan bi incha allah léegi léegi lay doon internet yi man ak yéen d'accord ni daal di jàll ci biir alors internet yi mu ngi noonu ñoo ko gisandoo tey nag jàngoo laa seet si moom nag turu Mor Sène lay wuyoo waaye Sénégal yëpp jàngoo lañ ko xamee kon dañuy waxtaan ci jàngoo waxtaan ci Mor Sène laataa ñuy duggoo ci jàngoo dañuy ñëw ci Mor Sène ba pare tey boo doon wax sénégalais yi wax ñi lay seetaan kan mooy Mor Sène lan nga leen di waxtee waaw asalaamaaleykum Adja Mbène maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Sénégal yëpp di nuyu aussi rawatina Pikine bi nga xam ne fa nga jugee man aussi falaa laa jugee di nuyu géej Géejuwaay bi nga xam ne fi nga ma fekk fi laay liggéey di fi daan sama doole di nuyu Sénégal yëpp waaw Mor Sène benn nongo daara la rek comme niñ koy waxee rek euh, benn jeune banlieue la mhm. juddoo ci banlieue bi yaroo fi màggee fi fi ko lépp fekk aussi mu nekk koo xam ne nii ab taalibe la rek day day day day dem ñëw rek loolu rek lay dundee. Hmm. waaw kese romb ma loolu dundu taalibe rek laay dund te moom rek laa bëgg a dund ba keroog yàlla di ma fi jëlee. macha allah ah, tey jii nii boo ñu doon wax ah, ci ci ci say jaar jaar laataa ñuy ñëw sa intégration biir ARCO say jaar jaar. waaw jaar jaaru xale rek ndax def naa bi may njëkk a def théâtre mu ngi ma fekk maa ngi am fukki at juróom. mun naa ne ci laa njëkk a def sama premier spectacle sur seen bi may jàng franco rap Serigne Mass Thiaw bi ma ko defee franco rap Serigne Mass Thiaw bi ma ko defee ba pare nag bon après dafa génnaatoon sama xel parce que fin d'année la fin d'année la woon rek Euh, ñëpp ñëw ñu doon def euh, fin d'année bi. ñu théâtre école ma def ko mais sunu benn oustaz boo xam ne moom moo ñu doon jàngal tafsir oustaz Cheikh Ndiaye suma ma juumul. Mm-hmm. après bi spectacle bi jeexee daf ma gis ci ruq daan na ma pourtant boo defoon théâtre di nga ci génn mais période bi mu koy wax boobu loolu nekkul woon sama bopp jàng bi rek moom moo nekkoon sama bopp. donc après dem nañ bàyyi côté deux mille deux mille huit deux mille neuf ci laay soog nag dugg carrément ci théâtre ci laa ci laa bàyyi maa ngi bàyyi jàng 2003. après def naa fi maçon. mbaa mbaaru kalaasu gor yi. non <laughs> du kalaasu gor ndax yàlla suturaal na ma. Ah. ma jàng ba am sama BFM. en franco arabe donc bi may am BFM nag xawoon na difficile ndax euh, moyen passable la amoon ndax période boobu mu ma fekkoon maa ngi bëggoon bàyyi jàng. kut ko kut ndax ay euh, situation yu bëri euh, raison yu bari moo taxoon ma bëgg bàyyi jàng donc loolu la waaw. nga bàyyi jàng nekk ci lan. ma bàyyi jàng jóge fi dem def tailleur def naa tailleur pendant quatre ans. bi ma ñibbisee aussi tamit ma nekk ci maçon bi yàlla def ma nekkoon ci famille boo xam ne nii ñoom loolu rek mooy seen métier mooy famille Pape Moustapha Diop ma jàng fa maçon ba yàlla suturaal ma am ci li ma ci ko lool tamit euh, bi yàlla defee loolu tamit théâtre daf ma ci diggante bi ma dugg ci mhm. depuis 2008 2009 ba léegi maa ngi ci di ci di ci di ci góorgóorlu boobu ba léegi euh, comme niñ koy waxee rek yàlla di soog a ñëw macha allah dégg ngeen fi nga xamante ne bi foofu la jaar jàng na def théâtre école jóge ci njàng mi def tailleur jóge ci tailleur bi def ci maçon ba jóge ci mason bi doogaa dugg li nga xamante ni moom mooy ci arco bi arco Pikine Dakar. Arco Dakar waaw. Arco Dakar laa nekk parce que sama yaay bi période bi may yóbbu Arco muy maman Aminata mbay jamono boobu Arco Dakar kese moo existé woon Arco Pikine amul Arco Guédiawaye amul Arco Rufisque Kër Massar yëpp amuñu woon donc ñëpp dañ daan dajaloo Arco Dakar donc bi yàlla defee ñu dem ba xam ne nag affaire yi muy commencé yaatu te Pikine ña fa nekk mën nañu toog foofu répété Guédiawaye ña fa dëkk mën nañu toog foofu répété Dakar ña fa dëkk aussi même chose ci la ñu euh, maanaam séddalee arco yi ku nekk jël sa wàll bon man comme dakaar laa xam falaa ëpp lu ma daan dem te it ki ma jàpp ci loxo yóbbu ma fa la ma yóbbu donc mënuma mënuma def dara lu dul toog yeggalee foofu fii que moom mi ma fa yóbbu mu ngi fa mais Pikine falaa dëkk falaa dëkk mooy sama lépp lu ma mën a liggéey ci àdduna bu ma ñëwee Pikine laa koy alors euh, boobaag léegi yow yaa ngi nekk Arco dëgg la sénégalais yi ñu ngi lay doog a ràññee ci rôlu jàngoo bi. mais nag yow jàngoo loolu faa ñu waxtaanee ko de ay rôlu bandikat ay rôlu bandi te man maa ngi toog jàkkaar loolu benn Baay Faal loolu loolu loolu faa ñu waxtaan ci incha allah. waaw loolu dafay am xamat souvent euh, acteurs yu ci bari boog majeure partie du ñëpp. mais majeure partie li ñu joué ak li nekk ci ñoom c'est deux choses différentes parfois na nga gis koo xam ne ni dafay joué lu dal joué lu tal fekk loolu naturellement dafa nekk ci moom mais ça ne veut pas dire rek lu nit joué wul rek nekkul ci moom aussi doomu aadama am na jikko yëpp mm-hmm. day denc rek mm-hmm. doomu aadama boo gis am na jiko yëpp mais day denc da ngay xool lu la arrangé nga génne ko lu la arrangé wul nga denc ko xam ne lii baaxul donc noonu la demee rek mais euh, presque li may joué lu ci bari personnage yooyu moo moo ci ëpp. waaw joué naa aussi ci jéegu puso bi xaar média. Euh, uh-huh. waaw xaar média joué naa ci jéegu puso maa ci nekkoon ku pauvre kooku rek tudd Ousmane. Euh, joué naa ci ci yu bari def naa benn film cinéma ba ñaar yoo xamante ni mu ngi jàll au niveau international. Euh, voilà mu ngi noonu xaw na bari mais lu ci ëpp nag théâtre sur scène la ëpp lu ma joué waaw théâtre sur scène euh, loolu yéen yéen yéen ñiy nekk ci arco yi da ngeen di am habitude boobu lu ëpp li ngeen di joué ay sur scène lay nekk waaw parce que ñun avant ñuy wax télé théâtre sur scène lañu njëkk la ñu njëkk jàngal donc forcément li nga njëkk jàng ci loolu ngay njëkk a tar yi ba pare après leneen looy def nga soog ko def après ñun téléfilm yi daf ñuy dab rek ñu nekk ci mais théâtre mooy suñu métier moom lañ jàng moom lañ xam moom lañ gën a mën fan la fan la jàngoo jaar ba dugg euh, Leuz TV jóge fa dem xaar média jóge fa soogaa yegg Marodi waaw loolu yëpp mun naa ne Arcos moo ko àndi Arcos du ma wax dakaar du ma wax Pikine du ma wax fenn mais dama naan Arcos national parce que ñun ñëpp couleur Arcos la ñuy porté fu ñu mën a dem mais rawatina aussi Arcos bi ma nekk muy Arcos dakaar donc ci liggéey lañ ñuy fekk rek gis ñu ñu am lu ñu sentir ci ñun ñu wooñu pour liggéey loolu ñu dem ñu def ko leuse bi ñu fay jaar noonu lañ fa jaaree sama grand Alioune Badara moom moo boole ak moom xam ne mu ngi yore troupe bu ñu wax géej mambulaan euh, bi ma fa jógee aussi tamit yàlla def yeneen projet yi am yëpp sama benn grand mm, dugal ma ci mu Ibrahima Mbaye Thié boo xam ne nii yàlla bu defee jàmm salaam rek du yàgg dara dina dugg à plus allah canal ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ci liggéey bi lañ ñu fekk dugal ñu ci biir Marodi. Marodi aussi tamit même chose. même chose parce que su ma juumul maa koy wax ci sama interview yu bari ndax euh, Arcos la ñu demandé woon benn casting ñu dajaloo ñu ñëpp kër président Pape Faye bi ñu fa dajaloo wee def casting bi yàlla def seen directrice casting bi Nafisatou madame Silla nekk moom it nit ku baax gis ma ci affaire bi ñu doon joué benn affaire boo xam ne nii affaire bi sentiroon na ko trop. ci ci pièce bi ñu doon joué pour contact et tout. jël ma. rôle bi ndax jafe woon na jouer trop. waaw tey tey tey problème boobu la ñu am mooy rôle su demee ba ba yomb rek y a problème amul rôle bu yomb ci àdduna muy rôle rôle rôle bu toog nooy bi wax bi mooy ak rôle bu mu mënti doon su nee dafa yomb rek ça veut dire liggéey bi kon des na kon amul rôle bu bu yomb rôle yëpp a metti mais emprise bi rôle bi ma ci interprété euh, ki bind scénario bi dimbali na ma ndax au moins. xaw na ma junj exactement personage bi lan la mais man aussi dugg naa ci ruq euh, daje ñi ma war a dajeel ànd ak ñi ma war a àndal liggéey aussi sama liggéeyu bopp pour mën a gën a réussir personnage bi. c'est que personnage bi moo doy waar. personnage bi dafa doy waar man man mii man mii ba <laughs> ba ma gisee Mor daal di toog seetaanaat Django dama ni non non lii c'est impossible mënul nekk. est-ce que mën nga ñu defal benn bu lenn lu ndaw loo xamante ni bii rek joué woon nga ko ci biir série benn benn róorul jàngoo bu gàtt rek fii ñu toog nii. Ah, dina xaw a compliqué ndax bon yow xam nga nu mu demee. non noo defal ñu lu ndaw rek. ndax déjà ci milieu bi nga nekk. surtout surtout bi nga naan sukay yow sukay ki nga àndal kan <laughs> non ma je préfère ma bàyyi bàyyi sukkay bàyyi jàngoo ndax xëy na peut-être yëfu jàmbur la te it liggéeyu jàmbur bu la yàlla dimbalee nga liggéey ba liggéey bi jeex amatuloo droit pour laalaat ci dara donc loolu dama koy jël ma garder ko pour ñi ko moom mais su fekkente ne ci côté théâtre aussi tamit dinaa la mën a laala loo xam ne xëy na du ñàkk joué naa ko. demal ñu xool détail ndax euh, yaa ngi may andil problème nag. <laughs> waaw ndax dafa am benn benn benn pièce boo xamante ni dañ ko joué muy.

nga ne ko da génn Kajoor xawoon na metti donc bi ñu ko waxee xawoon na am yëg-yëgu boppam ba tagg ay maamam woo ay maamam pour xamal leen ne leen voilà lii la gouverneur wax. mu à sortir du Kajoor. moi Lat Dior Ngoné Latyr Diop de ma naissance. Lat Sukaabe de mon intronisation. Silmaxa Diop de jébbalu am Maba Jaxu Ba La Diop pour tous mes intimes, Diallo pour les griots et les tudjons. Moi sortir du Cayor. As-tu entendu l'Atsukabe premier Et toi, Maïse Tendouadji Et toi encore, Maïse Bigengone Et vous tous, ma Giorgio Yassine, ma Kodokumba Djari, Biram Fatim Penda. amari ngoone ndeel ak kumba faat ma cubb may sa de joor moo grand-père birima ngoone latir mon frère tous damel teeñ sous mes pieds enterrés baal ma yem foofu <laughs> maa ngi mel ni sax man ku nekk ca seen ba man <laughs> gis nga donc loolu la ñun théâtre sur scène la ñu yàlla gën a féetale moom lañ gën a mën mais tamit euh, liggéey la ndax théâtre boo ko waxee mënoo ko wax te doo tudd cinéma donc ñaar yëpp la ñuy boole fas yéene ci daan suñu doole def lu ñu mën macha allah li nga fi def doy na waar lool xam naa ni internet yi ñoom li ma jàppoon dina leen jàpp eh, yow ak yow yow ak Marodi ak emprise contrat la woon boo xamante ni bii nii da ngeen ko signé woon mu yem fa wala loo xamante ni day woy la pour pour pour yeneen i série yoo xam ni Marodi la. contrat bi ma signé ak Marodi c'est juste pour emprise. Hmm. waaw emprise kese moo taxoon ma signé ak ñoom contrat. kon mën nañoo xaar jàngoo ak yeneen i euh, maison de production. incha allah rabbi heure bu ñu yàlla boolee ak beneen maison de production bu mu mën a doon rek. daañu dem daañu jëflante ak ñoom incha allah. fii ñu toll toog nii di di di waxtaan ak yow ndax amut kenn koo xam ni contacté na la bi emprise jeexeeg léegi. waaw am na am na ñu ma contacté mais xam nga gars yi souvent comme bu ñu nekkee ci ay liggéey yoo xam ne ni la. ci ci bi dañoo gisoon ñaan ñoo xamante ni kenn mënu leen woon tàkkale mujj gi ñu nekk ay xaj ak muus or série bi jàngoo ak Sukay lak na yan yan relation la ñu am ñoom ñaar. Euh, hors série bi Django ak Sukay su ma juumul waaw su ma juumul ci ci ci ci emprise dañuy soo ko gisantee man ak moom mm. waaw ci la ñu mm. soo ko daje liggéey malgré Pikine la dëkk ma dëkk caaro yi Pikine la benn la mm. euh, mais mu nekk nit ku baax koo xamante ni yàlla boole na ma ak moom ma mu nekk nit koo xam ne day may doole nit day yokk fit nit ndax bi may soog ñëw man d'habitude fu mu mën a dem rek damay xaw a am tuuti kersa te jikko yi ki bëgg a doon Baye Fall day ñëw mooy maanaam damay toog xaw a dal concentré wu ci sama liggéey su ma ko defee ba pare ma ñibbi mais moom dalay fekk fi nga toog kaf ak yow foo ak yow ree ak yow ma dem ba remarqué loolu ci moom ma ma ma jàpp ko acteur emprise yëpp aussi tamit noonu la ñu mel ku mel ni Pape Demba Jo ak Aldo bërki démb démb ci guddi rek la la la Jo mujjee sama kër mooy Abdourahmane donc ñooñu ak ñëpp nag parce que xëy na peut-être groupe boo gis rek dina am ñu yàlla gën a boole mhm. mais cela n'empêche que ñëpp samay xarit lañ muy ñu tàmbalee ci sunu sunu papa Saneex ñoom ñoom ñoom Mansour sama papa bi nga xam ne ni moom la ñëpp découvrir ak sunu yaay mama Rama mhm. euh, xam ne Amélie Mbaye ak euh, ñoom ñoom mama Fatou mhm. bërki démb rek mu ngi may woo donc ñoom ñëpp samay nit lañ waaw mu ngi noonu affinité boobu laa am ak ñoom ñu nekk ay nit yu baax mais su kay moom elle est exceptionnelle ndax man durant li ñuy tourner en prise yëpp heure bu ñu amee séquence yoo xam ne ñoo ko bokk damay dem këram souvent dama koy woo ne ko foo nekk mu ne ma maa ngi sama kër mën a dem bu ma demee ñu toog ñu jàng suñu ay texte répété répété répété ba mu moo ko moo tax à chaque fois bu ñëwee plateau dañu am facilité pour liggéey bu ñu paree ku nekk dem alors euh, dañuy génn ci jàng duggaat tuuti ci Mor Sène euh, Mor euh, da nga ni da nga da nga bàyyi jàng pour yenn raison yoo xamante ni bi ñoom ñoo la poussé nga bàyyi jàng dem jàngi métier ndax mën nga ñu wax lan moo la lan moo la poussé ba nga ba nga bàyyi sa jàng pour mën a dem jàngi métier. waaw loolu du ci bëgg a sori mais raison yi poussé xale yu góor yëpp ñu ñu dagg seen seen jàng. Mhm. mooy bëgg a bëgg a faj loo xamante ni xëy na peut-être euh, mënul faju raison yooyu rek la du ma bëgg di xuus à 100 pour cent ndax affaire yi daa xaw a doy waar mais bëgg a régler loo xam ne nii gis nga ni mënul régler wu mooy tax en général nit di dakk jàngam mais du bon du dara donc loolu rek dama gis sa benn interview ngay wax euh, ci sa yaay di wax tamit di sa soxna balaa ñuy ñëw ci soxna si jàngoo ak yaayam euh, Mor bokk ak yaayam yan yan relation yu particulier la ñu am parce que d'après ni nga waxee yow ak sa yaay am na fu bari foo xamante ni bii jaan ngeen fa. Euh, sama gàllaaj la. ndax su may génn suñu kër sax nii nii nii bi may ñëw dama ko tàllal sama loxo na maa ngi dem maa ngi ñëw su ma génnee suñu kër te gisuma sama yaay wala soit tàllalu ma sama loxo mu ñaanal ma journée boobu su ma demee par force dina am lu ma dal donc moom euh, ku ku ku ku sori ci man la moom moo may jàppale moom moo may taxaw ci lépp malgré ni ko ni mu ni mu dalee ni mu nekkee nit koo xamante ni daray àdduna yëngalu ko ndax nit am na fa xam ne boo tolloo da jéem a xool bu baax fi nga jëm mm-hmm. te aussi day tax doomu aadama war a gën a mën a respecté waat yaayam ndax papa am na solo yaay am na solo mais yaay daf cee raw ndax yaay kenn du moom mais moom fi mu toll ci man dafa sori moo tax euh, mooy sama lépp mooy sama gàllaaj mooy sama lepp su ma tiitee su ma jaaxlee su ma amee lu ma naqari su ma amee lu ma metti su ma amee lu ma neex yëpp moom lay toogal moom laay waxtaanal après ça passe waaw Mor Sène ak Soxna si jàngoo jàngoo su kay la donc Mor Sène ak Soxna si aussi tamit même chose euh, nitu nitu moom nitu àjjana laa koy woowee ndax jigéen su fekkente ne yàlla boole na la ak moom mu metti trop ba nii muy metti mais mu boole lu ko neex ak lu ko naqar yëpp di la suturaal di la jàppale ci côté yëpp nag waaw ci côté yëpp su amee benn kenn du ko xam su amee fukk kenn du ko xam mun naa wax ni jigéen bu ëpp sutura ci àdduna bi moom la man su ma ñàkkee ba xëy du ma am lu ma ndékkee nit du ko xam suñu kër mbedd mi nit du ko xam samay yére bu tilimee ba aw ma saab bu ma ko fóotee nit du ko xam kon moom li ma koy ñaanal rek mooy njaboot bi nga xam ne yàlla boole na ma ak moom yàlla na doon njaboot bu bu koy taxaw man garaawul ndax góor yàlla la mais moom njabootam yàlla na ko taxawu zahiran wa baatinan lan nga xamante ni bii nii Mor Sène dund na ko loo xam ne ba fii boo ko mën naa tooyal sa xol. wala mu wala mu wala mu wala wala mu mu yóbbu la fu sori foo xamante ni bii nii boo koy expliquer mën na am lu mu def ci waaw man nag yàlla dafa def théâtre wala cinéma rek mooy génnee sama rongoñ <laughs> mais nag li ma dund mu gën ma metti ci suma papa la ndax euh, tey jii su ma amoon lu ma gënal nii ñu tuddee moor moor wala soit ñuy wax jàngo jàngo mu fekkee ko mu am yëg-yëg ni doomam tey teg na benn paa ba ba ba lu tolloog ñett wala ñeenti nit ci réew mi xam ko. loolu bëggoon naa mu fekkee ko trop bëggoon naa aussi tam mu fekkee as tuut si nga xamante ne nii maa ngi koy liggéey di ko am mu lekk ci même bu dee fukki dërëm donc loolu su fekkente ne am naa dara lu mën a naqari sama àdduna rek loolu lay doon ndax moom yàlla dafa ma boole woon ak moom malgré nag dama bëgg sama yaay trop mais sama papa maa ko maa ko géré woon ci lépp maa maa yore woon léppam je veux dire ndax bi may toll ci fukki at di xaw a xàmmee lay yëg nii sama papa dafa nekk ci feebar bu bu metti trop. mais n'empêche que léppam maa ko yoroon maa ko jox mu lekk maa koy jox mu naan léppam man la woon hmm. loolu rek moom moo ma xaw a moo ma xaw a metti ci suma dund buggoon naa mu lekk buggoon naa mu am yëg-yëg bi ma am buggoon naa mu am yëg-yëg bi waajur yëpp di am mais nag mënuñ ci dara ndax yàlla bu soxlaa kenn dootul soxla noonu la demee. mu ngi noonu yàlla bu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk Mor na tey ban conseil ngay jox jeunes yi nga xamante ni bii nii ñoom ñu ngi jug di dugg ci cinéma bi ak fi cinéma bi toll léegi ci ci ci ci Sénégal. conseil bi may jox sama bopp rek laa leen di jox ndax xëy na peut man tuuti naa pour euh, wax kenn defal lii wala dugal fii wala génnal fii. xam ni dañuy ñëw rek comme série yi léegi ni mu bëree téléfilm yi ni mu bëree léegi gars yi dañuy jël rek dugal day dem sax ba dañuy naan dañuy yàq yéen seen métier. waaw mais nag après du doon benn. ndax bu la yàlla dimbalee nga jàng ko mën ko boo dajee ak ku ko jàngul ak ku ko mënul day feeñ. donc métier la li may wax jeune rek bu bu ci bëgg a dugg rek mooy demal nga jàngi ko. waaw ndax cinéma moom yàlla di yàlla yàlla noonu la ko bindee mooy maanaam ku ne mën na koo def mais bu la yàlla natoo ñu dem ci casting jël la ba nga def ko nga réussir jàll boo ci jógee bëgg ko continuer demal nga jàngi ko waaw ndax film moom ku ne lay jël. question bi nga xamante ni bi moom la ñuy tëjee waxtaan bi moom sax lañu waroon a ubbee mais dañu koy tëjee mu nekk question actualité fi senegal toll rayante bi bari diw ak diw rey na diw rey na diw xeex nañu reyante te te ñi ci bari ñi koy defante ay xarit la ñuy doon wala ñoo xamante ni bi ñu xamante lañu euh, loolu ban jàngat nga ci am. ba jàngat bi bi àdduna yëpp am. ndax doomu aadama matul. tey dina toll foo xam ne li muy def li koy defloo kenn xamu ko ki rey yàlla moo ne ko na rey bakkanam ci loxo kooku la waroon a jaar mais kenn rafetuwul kenn rafetluwul rey ndax bakkan foor na benn foor boo xamante ni ku ko mën a jël ak circonstance boo ko mën a jëlee moo xam dañu la tooñ moo xam yaa tooñ kenn du la ko baal nañu gën a raxasaat sunu ay xol ndax période bi ñu toll nii xol yi lañu war a gën a tàggataat ndax moom moo ñu xaw a moom moo ñu xaw a sonal. ci lu bari dafa am benn benn xadis boo xamante ni bi may jàng franco arabe bokkoon na ci xadis bu ma gënoon a fonk ndax dafa am juróomi jikko yoo xam ne da koo cité muy asiduxu muy dëggu rasul fadaa ili al andulu maandu asaasul mulki al xilmu sayidul axlaaxi alxanaatu kanzun laa yafna sabru miftaaxul faraj asiduxu mu ne dëggu mooy bopp ngëneel yépp gis nga boo dëggoo ci àdduna dara du la sonal ci àdduna dara du la fëkk alhan du lu maandu boo maandoo amul ci àdduna lu nit di mën a def ba mu déranger la lewet alxilmu moo gën jikko boo gis ci àdduna doomu aadama da ngay lewet gis nga boo lewetee di nga iñaane yëkkati puso sax teg ko ci kaw nit ak lu mu mën a metti metti metti metti doo ko def doylu alxanaatu moo moom moo ñu xaw a sonal période bii nii ndax doomu aadama yi ñàkk doylu mooy tax ñuy dugg ci détails yu bari bari bari bari bari boo doyluwul rek pour nga def njombe day yomb beneen bi ci tëj bi ko tëj mooy muñ ak sabru muñ moo jafe période bii nii awma lii nii xaaral ma toog muñ ko wala awma lii nii negal ma def nangam ak nangam dañuy bëgg kut ku kut ñu am li ñu bëgg te c'est impossible yàlla xëyul jox ñëpp loo gis doomu aadama am ko te amuloo ko muñ ko te xam ne yàlla moom la ko sedd yow sedduloo ko buñ ko defé rek dañuy noppalu mhm. macha allah internet yi ni ko tuba bi di waxee l'émission tire à sa fin tay nak Mor Sène la ñu seet si waxtaan ak mom en tant que Mor Sène mais waxtaan ak mom en tant que Django dañu koy bàyyi mu dal di tagato ak internet yi laataa ñuy tej waaw di tagato rek di gëreum wa fi nga xamanteni fi nga mu fek muy bërëb bo xam ni mën naa du liggéey mais ci ñuko mom la laa bokk sama jabar mo fi nek ndax danaka sama njaboot la fi dajale muy mareem ak ndey ak Anta donc mu mu nekk ñett ñu baax ñu am taalibe ñu yaru aussi ku fi mën a ñëw ni nga fiy duggee muy mbégte noonu nga fiy génne bañ nax boobu ñu lay jox lekk sax da ngay sawar lekk-lekk bi parce que ni ñu la koy joxee moo neex donc ma leen di gërëm di gërëm koo xamante ni dafa sori ci man tey ma gërëm kenn ñooñu rek laay gërëm Moussa Ba sama moto bi ñànkaar la mais heure bu paanee su ma nekk allo fu mu mën a nekk rek day daw ñëw defar après ak mécaniciens yi nekk sama koñ yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di gërëm sama waa kër di gërëm usi waa pikin di leen sant bu baax a baax ndax tey lu ma doon rek ginnaaw yàlla ñoom la di gërëm mbaay yaa ngi mbaay yàlla na ko yàlla defal jàmm jërëjëf jàngo eh, waa Pikine amuñu seen fay tey lu ñu mënti doon pikin la pikin la ñu juddoo Pikine la ñu yaroo pikin la ñu màggi Pikine la ñu xam te Pikine la ñuy tiitaroo waa pikin eh, lañuy gërëm waa pikin info ca micro Pikine info la ñu leen di gërëmee laata may tëj damay def eh, ma dékk sama micro ñi nga xamante ni ñoom laa fekk ñu fiy liggéeyandoo Mor Sène ñu am témoignage bu ndaw boo xamante ni dinañ ko def ci moom laata nga xamante ni dinaa tëj waaye ma wala ma wala ma tëjaale rek Cheikh bu ñu paree témoignage bi rek yow yow nga daal di euh, fay euh, caméra yi ma daal di gërëm képp koo xamante ni bi toog nga jël sa téléphone euh, daal di jàkkaarloog ñun seetaan ñu ndax nag li may wax chaque jour YouTube du télé YouTube kay seetaan connexion am la ci la ciy def te ku jël connexion am daal di toog jàkkaarloo ak yow seetaan la kooku amoo loo ko fayee lu dul di leen sant di leen gërëm di di rafetlu bu baax a baax a jàppale bi nga xamante ni bi yéen a ngi koy jàppale Pikine Info seen Pikine Info la seen chaîne la yéen yéen ko moom yéen la fi nekkal te li ngeen bëgg rek lañ leen di indil nañ jàll dem ci témoignage bi sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu yow soxna si bu baax a baax da ngeen nuyu ñun ñu fi fekk aussi suñu patron Mansour ak Mor Sène Anta Marème ñu ngi nuyu ci toute équipe bi fi nekk di leen wax salaamaaleykum. balaa ngay joxe adresse su pâtisserie bi dañu lay laaj rek lan nga xam Mor bi nga xamante ni yéen yéenay liggéeyal nag moom ban ban ban genre nit la. Mm, Mor Sène la ñuy wax en tant que euh, xarit liggéeykat après ñu wax en tant que ak yi artiste bi mu nekk wax dëgg yàlla ku baax la ku ouvert la ku bëgg nit la tamit euh, koo xamante ne daal wax dëgg fa yàlla taalibe la daal bàyyi faal amul benn problème neex naa nekkal wax dëgg yàlla def ñu comme ay raqam tamit uuf ñu nekk ñu nekk bu rafet macha allah. ndax ndax ndax naqari naa nekkal wala mu naqaree liggéeyandoo. non non naqariwul liggéeyandoo wax dëgg fa yàlla ni ma comme ni ma wax léegi oyof na. fu mu ne la jaar fa fa ngay jaar ñu tamit ñu topp yi client yi <laughs> bu metti non ku ci nekk da nga xam li nga war a liggéey. ci nekk da nga war a xam da nga xam fi nga teg sa tànk xam li fii liggéey moo ñu fi indi liggéey rek nañuy def ku ci nekk daal li nga war a def moom dëgg yàlla doo xaar la ko wax moo tax mu neex a nekkal. macha allah pâtisserie bi fan la nekk. pâtisserie mu ngi nekk en face poste bi nekk dend ak police Guédiawaye pâtisserie Teranga foofu la nekkee. ak uh-huh. seen tenue yi tenue yi macha allah gis nga rek tenue yi rafet la moom macha allah. mi ngi noonu pâtisserie wuyu na turam ndax defal nañ ñu Teranga Cheikh jaajëfal naa yow it bu baax a baax jaajëfal internet yëpp beneen yoon incha allah yeneen i programme fii ci Pikine Info jërë ngeen jëf.